man ci do ci njabo gi la bok way seigne Moustapha ni mi doxé sa addi joju do ko nangu ba wo wat seigne bi tek ko ci loxo ni ko sa dom ji da tàmbali na la tàmbale seigne bi am ca mu ko santé mom kon sa jëf gi nga fi jëf njaboot gi gis na ko ñoo ngi lay sant di la gërëm di am ak yow itam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 ndax sëñ bee taxaw wax ci digg ñëwul fi baax ba tax muy def li gën fa mu fa nekkee la fa doonoon ki gën yoonam wu fi ñëwee ak kim fii doon melokaan bu mu mën a yore day amee kun fa yëkkun bu ko neexee nekkum naar bu ko neexee ñuul bo wédé nga laj wa gannar ñëpp ko daan sétan 95 ans la fi daan am sa bu ñëwa yoonam bu mujj wi rek la def 75 daat ni sawa kon modi kan modi di borom aras zaayiram la wacce fi di xamle borom aras. jere jeffe Serigne Touba. jere jeffe Serigne Touba. jere jeffe Serigne Touba. jere jeffe Serigne Touba. jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul. jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba xaadim rasul. bii daaw nag. heure bii daaw nag. Eh, dañ ko màggaloon fii. dañ ko màggaloon fii. ci teewaayu alkayed. nee na teewaayu alkayed. Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. ba mu fi teewee. nee na ba mu fi teewee. Eh, doomam ji di Ablaye Dieye. doomam ji di président Ablaye Dieye. dafa toog. dafa toog. ci kanamu mbooloo mi. ci kanamu mbooloo mi. mu baayoo ko mu baayoo ko doomoo ko kon wax jooju wax jooju da koy topp ba tey daf koy topp ba tey nag ndax euh, Ablaye ba mu jógee tey di ñëw Thiès. nee na euh, président Ablaye bi mu jógee tey di ñëw cees général daf ma woo. général Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni daf koo woo. neel Ablaye na jaar fii balaa mu dem Thiès. ni ko neel président Ablaye na fi jaar bala moo dem Thiès. nee na mu woo Ablaye. mu maa ngi nii di tëj sama bureau doon ñëw Thiès. nee na mu ne ko maa ngi nii doon tëj sama biro ngir dem Thiès. waaye këram laa jubal nii. waaye nee na du ma jàdd fenn kër si Ahmadou Kara Mbacké Noreyni laay dem. kon moom nee dafa jàpp ni. Ablaye dafa am chance. Ablaye dafa am chance. ndax ndax. Euh, dafa am lu mu bëgg ci réew mi. dafa am lu mu bëgg ci réew mi. soxla ko ci dëkk bi. soxla ko ci dëkk bi. ñu toll foo xam ne. ñu toll foo xam ni. ñu bari samp nañ seen i ndënd. ñu bari samp nañu seen ndënd. waaye li ma wóor te tama seede ko. waaye li ko wóor tamu mu seede ko. général de Bamba bu ko woowee téléphone. général Bamba bu ko woowee téléphone. monsieur le maire la koy wax. nee na monsieur le maire de la koy wax.

mu jiite ko fa mu jiite ko fa itam. ku ñuy wax euh, docteur Djibril saar ku ñuy wax docteur Djibril saar jiite ko ci ouest. jiite ko ca Thiès ouest. Euh, ku ñuy wax Ousmane Diop. ku ñuy wax Ousmane Diop. jiite ko ci nord. jiite ko ci fii ci zone nord bii ñu ne fii ñu toog. ci la bokk mhm, kon li fi mooy euh, njaboot gi. njaboot gi. du ñaar benn la. du ñaar kenn lanu. te bëgg-bëgg général Bamba. bëgg-bëggu Seex Ahmadou Kara Mbacké nooree nii. njaboot gi amuñ ci luñ ciy sikki sàkka. njaboot gi amuñu luñ ciy sikki sàkka. lu mu wax noonu la. lu mu wax noonu la. lu mu bëgg. lu mu bëgg. mooy ngeen teel ko Ablaye. mooy ngeen teel ko président Ablaye Dieye mii. lii ñu jublu lii ñu jublu. buñ ci am dara lu ñuy xalaat. buñ ci am dara luñ ciy xalaat. nañ ko jàppale. nañ ko jàppale. ba monsieur le boobu ba monsieur le boobu nga xam moom la ko sëriñ bi woowee. mu doon dëgg. nee na mu doon lu wér nag doon dëgg. Cheikh Amadou Kora Mbacké nee Nouré nee na. mu ne Bamba doy na sëkk. laakuwaay. te doy na sëkk. weeruwaay. Bamba doy na sëkk. laakuwaay. doy na sëkk. weeruwaay. kan moo ko wax. Cheikh Amadou Kora Mbacké Nouré. na ñëpp tey menacé wul kenn ay mbiram nii lay doxe bañkat yi yéen a ñi añaan masta leen faju leen ci xosaa indi nga la yéen budul woon ak yi mu leeral ci ku añaan ak ku soxor kon ngeen xam ni maay ndaanaan kon dama naan amul ndaxte dama baax baax a ganus fu ne laa man ni faax Ablaye ñii xamee leen ko xamee leen ko mm-hmm. président Ablaye Dieye. président Ablaye Dieye. laay mbay sax dafa ni Cheikh Ahmadou Bamba te yéen xam ngeen yéen ñi ma bokkal yëg-yëg ne ñun. Mm. kenn duñ jam naa